Barthélémy Diaz ne pense pas reculer sur le recrutement de Guy Marius Sagna et de l'ex-capitaine Touré dans son cabinet. Faisant face à la presse jeudi, le maire de Dakar a persisté que Guy Marius Sagna et Seydina Omar Touré sont membres du cabinet et ils le resteront. Il a brandi des preuves qu'il a les prérogatives de procéder à de telles nominations avant de promettre de saisir qui de droit pour que la mairie honore ses engagements envers ces deux recrues si on bloque leur au niveau du trésor concernant une éventuelle audience avec le chef de l'État, il a déclaré, je cite, Barthélémy Diaz n'a pas besoin de rencontrer Macky Sall. Le maire de Dakar a dit qu'il souhaite rencontrer le président de la République dans le cadre de sa mission. Cette demande d'audience est adressée au président de la République. Quel que soit son nom, sa religion, sa confrérie, cela m'importe peu. En déplacement à Nouakchott, dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, a confié que le Sénégal a décidé de supprimer les taxes sur la vente de bétail pour les éleveurs mauritaniens sur une période allant de 60 jours avant la fête et 40 jours après la fête de Tabaski. Quatre des six sages-femmes incriminées pour non-assistance à personne en danger dans le décès en cours de Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir de Louga risque une peine d'un an dont un mois ferme. C'est la réquisition du ministère public. Le procureur de la République a par contre demandé la relaxe au profit des deux autres sages-femmes mises en cause dans cette affaire. Elles ont comparu libres contrairement à leur quatre collègues envoyés en prison depuis le 19 avril. Le délibéré est attendu le 11 mai 2022. Le tribunal de grande instance de Fatick a jugé l'affaire de la violence filmée et impliquant des élèves à Karang et qui a suscité beaucoup d'indignation. Ibrahima Diaby, le principal mis en cause, et Bara Gueye qui a filmé la scène choquante ont été condamnés à six mois de prison, dont un mois ferme. Le tribunal a également demandé de verser 1,5 million à la partie civile, à savoir Mamadou Lamine Sangaré, en guise de dédommagement. En Afrique, sept soldats et quatre supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués jeudi dans deux embuscades tendues par des terroristes dans la région du nord et du centre-nord, a annoncé l'armée dans un communiqué rendu public ce vendredi par l'AFP. Un manifestant a été tué jeudi à Khartoum par les forces de l'ordre soudanaise lors d'un rassemblement contre le pouvoir militaire. La victime serait écrasée par un blindé appartenant aux forces soutenant le coup d'état militaire, a déclaré le comité central des médecins du Soudan, renseigne Africa News. Ce décès porte à 95 le nombre de personnes tuées dans la répression de ces manifestations. Nous terminons par le sport. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a donné des précisions sur les sanctions infligées à l'équipe nationale de football par la FIFA suite à la plainte de l'Égypte. Il assure que le match à huis clos décrété par la FIFA ne s'appliquera pas pour la réception du Bénin le 4 juin prochain à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2023. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.